ndaje mi tey dañ euh, dañ koy ubbi mu nekk daje boo xam ni euh, ay réew yu nga xam ni ñoo nekk fii ci Afrique euh, sowu jant daje fii di di weccante xalaat ci xeex bi ñuy xeex li ñuy wax mbën mooy lan ni nga xam ni mbëkk mi ñi nga xam ne dañuy jël soit suuf si wala dañuy jël gaal gi pour dem Europe dafa nekk nag senegal comme yeneen pays yi fi nekk ñi nga xam ne ñoo ñëw tey muy Mali muy Guinée muy euh, Niger muy Côte d'Ivoire dañoo nekk réew yoo xam ni euh, dañ fiy jóge di dem am ñoo xam ne aussi dañ fiy jaar rek pour dem am ñoo xam ne aussi dañuy ñëw pour toog donc euh, ñu comme ñun réew yëpp ñoo ñoo bokk mbir moomu ñuy toog nag di waxtaan pour xool nan lañ mën a def ñun réew yooyu yëpp li nga xam ne ñoo ko bokk euh, muy benn euh, góom boo xam ni ñëpp ñëpp ñoo ko bokk ñuy xool nan la ñuy seet nan lañ mën a def ba ba mën koo faj ku nekk nag nga indi yow sa réew euh, na nga koy doxale waaw ci wàllu texte yi nga xam ni moom moo organiser immigration clandestine ak pratique li nga xam ni yow moom ngay noonu nga koy jëfe ñu daal di ciy weccoonte xalaat nga xam ni dinañ mën a bu boobaa ku nekk jàng ci sa morom ba li ñuy xeex ñu mën koo xeex euh, efficacement. waaw li actuellement ni lu lu ëpp téeméeri nit ñu ngi ci prison yi ñu jàpp leen ñoo xam ni ñoom ay criminel lañ leen mën a tudde ndax ay passeurs lañ ndax ñooy jël nit ñi di di leen organiser di jël seen xaalis pour dugal leen ci gaal di leen yóbbu euh, bitim réew te loolu xam nga ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan. Union européenne dafa dégager 9 millions d'euros boo xam ni moom la jàppale. Euh, lutte xeex bi ici au Sénégal police sénégalaise euh, notamment par euh, la DNLT euh, division nationale de lutte contre le trafic des migrants pour faire l'immigration clandestine bi loolu nag dafa partie de am partie formation la ñoo xam ni dañuy yokk xam fait, ñi nga xam ni ñoo ak capacité aussi DNLT mooy yokk jumtuwaay yi DNLT pour mën a xeex loolu ak aussi indi yokkaat aussi euh, mooy yi nga xam ne moom la muy xeexe mooy lan DNLT ñu mën a au lieu muy nekk Dakar rek ñu mën ko wesaare ci ci Sénégal ba nga xam ne fu nekk dafay am antenne ek que ren incha allah dinañ am commencé tabax antenne ci sali ak antenne ci Saint-Louis antenne Kédougou ak antenne Ziguinchor incha allah bu ne ñu tabaxaat yeneen ñaari antenne je pense que loolu dina tax xeex bi gën a mën a gën a mën a yaatu. jërëjëf monsieur le général.